الله أكبر الله أكبر بقي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ورا war آية بوجك في سورة الجن di sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñuy dund ci chahru ramadan de weeru koor waaye tey it mu defal ñu leer gu tege ci kaw leer te mooy ñuy dund bisub aljuma nga xam ne mooy sangu bi yi dëppoog weeru koor mi nga xam ne mooy sangu weer yi waxtu wi ñu toogit di gannaaw takkusaan di waxtu ya boroom xam-xam yi ëpp yaakaar ca la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax ci waxtu wi nga xam ne am na ca ajjuma te yàlla du ca delloo ñaanu julit ñi ñu ngi ñaan suñu borom ñetti ngëneel yooyu yëpp yàlla nañu ko yàlla dëppale te yàlla fajal ñu suñuy aajoy adduna ak alaxira jagleel ñu njéggalam ak yërmandeem kon incha allah Cheikh Ousmane dafa nekk ci tukki euh, ki ñuy jàngal tey moom mooy Alioune Sarr bismillah فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا بارك الله فيكم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 fa qaalu inna samicna qur'anan ajaba ñu ne ñun dey dégg nañu alqur'an ju yéeme yahdi ila rushd day jubale jëm ci ak njub fa amanna bihi ñun day gëm nañ ci alqur'an jooje walan nushrika bi rabbina ahada ca ñun day bis na ki tey dootuñu bokkaaleete ak suñu boroom kenn wa annahu taala jaddu rabbina te li am day kawe na lool suñu darajay boroom ñu ngi noonu al jaddu mooy ki nga xam ne daa woomle ca am daraja yu kawe mattaxasa saaxibatan wala walada moom day jëlul benn àndandoo muy soxna جرلت لن دفك دوم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا نيل أم كي موي دون وخ سني دف بي دون وخ سني دف بي مي إبليس على الله تيالا شططا لنا خمنا موي أي فن يري مي أين جنبي وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا te ñun day jortoon nañu ne doomu aadama ak jinne kenn ñemewu ci di dóoral ci yàlla ay fen wa annahu kaana rijaalu min al ins doonte na amoon na ay góor ca nit ña yahuzuuna bi rijalin min al jinn ñu daan sakku xettaliku di làqu ca góor ya nekk ca jinne ya fa zaaduhum rahaqa mu ñu daal di di dolli la nga xam ne mooy ak pertang ak per ak pertangeer kese wa annahum zannu kama zanantum ñoom it day dañoo jortoon comme yéen ngeen jorte an lan yabaasa allahu ahada ne yàlla day du dekkal kenn ci ay jaamam mi ngi noonu mbokk lii mooy suuratul jinn gàllawaay julit xamal ne bokk na ci li nga war a gëm muy aalamul jinn yàlla am na mindaafoon yu ñuy wax jinni mindaafanu yàlla yi yàlla rekk xam nañu toll ci ay millions d'espèces waaye da cee tànn ñett ñoo xamee ni nii ñoom la jox responsabilité ñoo ànd ak xel di jaamu yàlla ku ko ci moy mu mbugal la mooy kan mooy malaaka yi malaaka yooyu asamaan la ñuy dëkkee mi ngi noonu am na luñ junjoon tey ci ñoom ci xutba bi fi jaaroon malaaka yi nag ñoom yàlla defal na leen ñoom duñu mooy yàlla ñi leen yàlla bind ñoom duñu mooy yàlla doonte na ñu ragal yàlla lañu ñuy toroxlul yàlla lañu ñuy topp yàlla lañu mu ngi noonu mu am yeneen ñaari mbindaafan bi ci jëkkoon mooy jinne yi ñoom la yàlla jëkk a bind seen bàyyi mooy iblis yàlla nga ko binde ci safara gannaaw ba génne ci moom soxnaam ñu am njaboot muy zuriyatu iblis mi ngi noonu muy njabootuk iblis ñoo jur mboole mi jinne jinne yooyee ñoom suñu borom yàlla da leen sant ñu jaamu yàlla donte ne génnewul ci ñoom ay yonent mboolemi yonent ci nit ñi la ñu nekk te mooy nit ñi kon ñooy ñetteelu mbooloo mi malaaka jinne nit jinne nag moom yàlla du génne ci moom yonent comme ni nga xam ne yàlla du yónni yonent bu jigéen ngi noonu mboolem yonent yàlla yónni ay góor lañu ay nit lañu jinne yooyu mboolem yonent bu ñëw day am ñu ko ca gëm am ñu ko ca weddi ña nga xam ni ñoo bon ca ñoom ñoom la ñuy tudde cheytaan ñooy cheytaan comme ñi bon ci nit ñi dañu di tudde cheytaan shayatin al ins wal jinn mi ngi noonu loolu moo tax ba ngelawaay moytul ba buñ ñuy jinn rek nga tiit buñ ñuy jinn rek nga am looy xalaat waaye xamal ne mbokk jinn yi ñoo nit ñi ñoo yem rek da cee am ñu baax am ca ñu bon léegi nag mu am yàlla yu ñu ne suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam lii boroom xam-xam yi wuute nañ ana ci ban jamono la am waaye daal yonent bi yàlla xamal ne ko ne ko ba ngay jàng alquran day keroog jinne yi ñëwoon nañ di la déglu qul uxiya ilayya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jinne yaa ngi koy war di ko déglu ci yéegu ko loolu lum ñuy jàngal yonent bi xamul kumpa lu dul lu ko yàlla subhanahu wa taala xamal nga noonu jinne yi ñëw nañ di la déglu muy benn mbooloo bi ñëwee loole yàlla ngi koy gën a détaillé suuratul Ahqaaf wa iz sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an falamma xadaruuhu qaalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin suñu borom nee na jinne yi bi ñu ñëwee fekk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di jàngal Qur'an te bokk na ci sabab bi li yàlla nar a wax ci kanam mooy niñ daan yéege kaw asamaan di déglu xabaar yi malaaka di wax léegi kenn mënatu ko ñu ne li am na lu xew bañu démé di wër lañu fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jàng alquran ñu déglu ko ñi ne suratul rahman la ñii ne suratu anam la ala kulli hal déglu nañ kaddu borom bi biñ ko dégloo ñoom ñu daal dellu ci seen xeet wallaw ila qawmihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم mi ngi noonu musaddiqin li ma bayna yadayhi yahdi ila alxaq wa ila siratul mustaqim borom bi nee na jinn yi dañoo daw nag ca seen xeet woo seen xeet ca loolu it la jinn am jinn amul yonent ay xuppaatekat la am ay waaraatekat comme masalan keroog bi yonent bi salaa salaam faatoo ba ila yawmi diin yonent dootu am ay waaraatekat ñooy am waaraatekat mooy ñiy jottali waxi yonent bi ñu ñëw ne seen xeet ñun day dégg nañu alquran ju yéeme na am mbokk wax ju mel ne alquran doomu aadama mosu koo dégg jinne mosu koo dégg alquran ju yéeme boo demee ci ahqaaf mu ne mooy téere bi yàlla wàcc gannaaw Muusa mi ngi jëme jëme ci njub ar rushdu mooy mbooli mi njub mbokk ki am rushdu mooy ki pas-pasam sell ay jëfam sell mu def ko te yàlla tax alquran ci loolu lay woote inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam ca mooy la gën a jub ci njub moom lay woote looloo tax kilifa gi gën ci kilifa gi mooy kilifa bi xam alquran wayjur wi gën ci wayjur yi mooy wayjur wa doom ba gën ci doom mooy doom ba xam alquran dëkkandoo bi gën ila ndax alquran yahdi lillati hiya aqwam ñu ne ay yéen ñun saaw xeet ñun de gën nañ ko te alxuraan joojee day lam gën a woote ndekete yoo yàlla kenn waru koo bokkaaleeg dara ñun bis nekk tey dootuñu bokkaaleeg yàlla kenn yàlla kese lañuy ñuy moom dong lañuy yaakaar mi ngi noonu suñu borom yàlla ay darajaam kawe na la suñu dof bi doon dóoral muy iblis mi ñu gëmloo woon ne yàlla kat moo jur malaaka yi yàlla jur malaaka yi loolee dara amu ci yàlla amul soxna yàlla amul doom mi ngi noonu ñun gëmoon nañu loolu ndax jàppoon nañ ne nit ñi taxaw walla jinne di fenal yàlla loolu jàppoon nañ ko te it wax dëgg yàlla mbokk loolu lu lu lu waroon mën a ñàkk am la dama aadama nga feñal sa bopp feñal sa moroomu nit sañal président de la république loolu day na njombe waaye allah rabbul alamin nga dóoral ko loo xam ne nii amul loolu jinne yi ñu ñun jàpp woon ne nit dana ko def waaye dañoo ñëwul Sénégal rek tey bu ñëwul Sénégal di déglu rajo yeeg télé yi ah mi ngi noonu bu ñëwul Sénégal di rajo yeeg télé yi bay dégg li nga xam ne moom lañu ñuy dóoral suñu borom jalla wa ala Sénégal rek lañ dem ba dóoral loo xam ne wallahi mosuma koo dégg ca it borom xam-xam may déglu yépp mosuñu koo dégg Sénégal lañ dem ba ne sëñ diw mii moo bind yàlla jalla wa ala yal na yàlla musal ñu ci loolu yàlla ñu ngi tuub dégg gi ñu dégg loolu yàlla ñu ngi lay sellal di la màggal yàlla nag ñu fegal sa mer mi ngi noonu Sénégal rek la am ñun jàppoon nañu ne doomu aada ñi taxaw di duural yàlla ndekete yooti liñ doon wax ci yàlla yépp ay fen la gis ngeen suñu borom nee na am noon na ci nit ñi ñoo xam ni dañ doon xettalikoo ci jinne yi te bokk boroom xam-xam yi dañ naan doomu aadama yi bi ñu doog a ñëw ci kaw suuf jinne yi dañ leen a ragal ndax yàlla da na teral seen kaw moo tax jinne yi ñu ngi daw dëkkuwaayu doomu aadama yi biir géej gi la ñuy nekk ak àll yu sori yi waaye doomu aadama seytaane ma ne leen bañ a daw di làqu ci ci jinne yi jinne yi na ah ñun ñii leen ragaloon te ñuy làqu ci ñoom xaaral dolli loon na nga xam ne mooy alkaali ku la gën a jege ay jinne gën laa jege ay xamb moo la ëpp ay feebar moo la ëpp ay fitna am déet mi noonu loolu moo tax ba tey jii dangay ngay gis ñi nga xam ne dañoo gëm affaire jinne yooyu dangay ñëw ci moom ak jege jagadi mu ne la da ngay sarxem nen da joxe nen nga dem nen ba boo ko doon sarxe sax muy jàmm da ngay dem ba ci diggu yoon nga toj fa nen ba am déet gis ngeen bu yàggee tuuti mën na la nit jàppaat la nga ñëw mën a ah, tey nag ganaar ngay joxe nga joxe ganaar boo yàggee tuuti mu jàppaat la ah, tey nag bëy wu ñuul ngay joxe noonu lay dem ak yooyu bu yóbbu la ciw nag noonu it da lay yóbboo mbokk lot sur lot wala tax ba mbokk jinni ëpp naa jëf leen teel donte ne ni bokk na natt bu ñu yàlla natt suñ jamonoy tey jii rawatina nag li tolloog ay ñaar fukki at nga noonu rawa suñu réew mooy koñ bu nekk am na fa ay lu ñuy tudd ruqiya ñoo xam ne dañuy mocc ay jinni loo xam ne boo dellu woon quarante ans amulul Sénégal waaye xale bu jigéen bu ñëw suma bopp dee métti ñu ne waaw ngelaw moo la sol jinne la commencé la ruqiya di la yuuxu say nopp ay nodd ak ay lu kenn xamul loolee mbokk moytu leen ko seen kemtaleel kattan su ngeen feebaree dem leen hôpital sukkandiku leen ci yàlla sax leen ci seen azkar ñu bari ci ñom 99 dañuy lek alu li nit ñi ci baatil 100000 fa nangam mille mi ngi nonu lolé bayi len ko xel bu baakha baakha baax a baax jinne yi suñu moromi mindaafan lañu yàlla leen moom amuñu ben kartan ci doomu adama ludul lu sof yàlla jalla wa ala njabar kat yoyé nga xam nañu ñoo lënkoo ak ñom suñu borom yàlla neena wama hum bi darin bihi min ahadin illa bi iznillah duñ ca lor kenn lu dul ci yàlla loolu moo tax ba dellu leen ci yàlla sukkandiku leen ci yàlla moytu leen di ragal jinne yi lu leen dal ngeen ni jinne la jinne la laa wallahi jinne du la dolli lu dul rëhëqa gën a alko gën a perte borom boobu nag ne jinne yi ak ñooñu doon collaborer ak ñoom jàppoon jàpp dañoo jàppoon ni bis du mës a ñëw yàlla dëkkal leen ah kay bis dana mësa ñëw yàlla dekkal leen mi ngi noonu Cheikh Ali wa anna kunna naqudu minha maqaida lissama فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن ولا يخاف بخسه ولا رهقا بارك الله فيكم سن برم جل وعلا مني وأنا كنا نقعد منها مقائد للصم أيوا ين دي نكون ننجتوك تا أصمان يو نعم وأنا لمسنا السماء اي واي نون داي دانيو نيكون دي لال اسمان فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا نون داي باني دمي با لال لاغا خامني موي غوخي اسمان فيكون نان نانكا فيصل دل تا لاغا خامني اي غارديان لان يو ام كابتن بولك اي جومي صورا موي بولو صورا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ñun day nekkoon nañ di toog ci asamaan yooyee toogaa yu déglu faman yastami il aana yajid lahu shihaba rasada waaye ku déglu léegi day da nga jot la nga xam ne mooy jumub sawara di buulub sawara boo xam ne mi ngi taxaw di la fuglu wa anna la nadri asharrun urida bi man fi l ard am arada bihim rabbuhum rashada te ñun day xamuñu ndax aw musiba lañ bëggal waa suuf wala seen borom yàlla moo leen bëggal ak njub wa anna minna salihun te ñun day nekk na ci ñun ñu baax lool wa minna duna zalik am na ci nag ci ñun ñoo xam ne yegguñu ci mbaax kunna taraiqa qidada nekkoon nañ ay tariixa yoo xam ne yu teqalikoo lañu wa anna zananna an lan nu'jiza allaha fil ard طريق ميون وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض من دي جرتون نجيني دنيا من تيال مكو تكوسوف ولا نعجزه هربا تدنك من تمكو تدو غني من دوجم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به موتخ من دي بن ديجين جبوك يالغا دنكو دادي فمن يؤمن بربه كو خمنا جمنا برامم دي fala yaxaafu baxsawn kooku day du ragal lenn luñ koy wàññil ca la nga xamee ni nii moom mooy ay tuyaabaam wala rëhëqa wala benn ko perte gu ñuy teg ci kawam di ko duur di ko duural loo xam ne defu ko mi ngi noonu mbokk jiitu lu ñuy jàng ci kaw di am lan moo nekkoon sabab bi sabab bi mooy suñu boroom yàlla daa nattu julli daa nattu jinne yi ndax jinne ak malaaka daanaka xawuñu soriyoo ci mbindin bi leen yàlla bind ndax jinni yàlla nga ko bind ci leer muy flamme moo yàlla nga ko bind ci takk-takk muy flamme malaaka yàlla bind ko ci leer loolu moo tax ba malaaka yi ni ñuy naawee jëm kaw asamaan jinne it noonu la leen yàlla may kattan ñuy naaw jëm kaw asamaan xam ngeen keroog bi yàlla di wax ak malaaka yi sujjuutal leen aadama iblis mu ngi woon ci asamaan yi suñu borom yàlla ne ko gisu ko sujjootul iblis su dox sujjootoo mu ne kii nga muy sujjootloo maa ko gën mu ne ko kon wàccal wàccal foofu naka noonu it yàlla natt woon na njabootu iblis muy jinne yooyu ñuy naaw kaw jëm kaw asamaan ci di déglu xabaar yi yàlla di wax ak malaaka yi ci ñu yor wàllu dund yi wàllu dee dee ak yooyu xabaar yooyu ñu ciy déggee ñu koy jël di ko jox seen buxaabakat yi waaye biñ demee ba yàlla yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bal ba alxuraan commencé wàcc léegi nag jinn bu naawati jëw ko asamaan rek yàlla mi ngi ko feesal ay malaaka ñu yor ay buur sawara yoo xam ne jinn bu ñëw ñu sànni la ko mooy yooyu ngay gis muy biddiw yooyu di faq ñu ne ah ñun de daanañ toog kaw asamaan di déglu léegi kenn mënatalul déglu xamuñu nag lan mooy xew ndax waa suuf yàlla da leen nara nar alak moo tax yàlla biddiw yi di dàqante walla yàlla daa bëgg ak njub ci waa suuf ba tax ñun ñi daan dem di jëli xabaar di leen réeral mënatuñ faa jële ji ay xabaar te loolu it ñu bàyyi ci xel bu baax bokk na ci loo xam ne nii ak musiba la mooy nga dem ci seetkat yooyu nga xam ni seytaane yi bu ñu naawee jëli xabaar bu ca kenn digloo dara malaaka yi sànni ko jum léeg-léeg xabaar bi mu joxe ko avant jum bi di ko loolu la saltige bi di jël bu xaaba bi di jël seetkat bi di jël boole ci téeméeri fen bu ko defee bu waxee benn dëgg wax ay fen leneen lu mu waxati ñu ne moo waxoon nangam am na waaye rasul sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku sol sow dal dem ci ab seetkat di ko laat mu lay wax ci sa avenir ku mel noonu day lam lay wax boo ko gëmee weddi nga alquran te loolu comme ni muy ñëwee ci kanam boo dee ne dem nga ci moom ñeen fukki fan duñu nangu say julli loolu kon moo tax jinn yi ne xamuñu ndox yàlla daa bëgg indi njub ci kaw suuf moo tax ñu tere ñu kenn mëntuñoo dégloo ci jinne yooyu nag ñun ne ah am na ci ñun ñu baax am na ci ñun ñu ñu baaxul ñu dul loolu ñun ay yoon lañu woon yu séddali ko te mbokk ci gàttal jinne yi ñoo nit ñee yem daa am jinne yéeféer jinne jullit ñey jullit ca moom am ci niti biddaa am ci niti sunna am ci ay chia naka noonu i tamit jinne noonu la amee ay agresseur noonu la amee ñu baax ila axiri mooy nit ñi mel ci jukko noonu la ji noonu la jinne yi mel ci ci ci jukko ña nga xam ne dañ caa baax amuñu nit ñi benn affaire ña nga nekk ci lañ nekk ña ngay jaamu seen borom ña nga xam ne ñoo ca bon nag ñooy sonal jullit ñi di leen dofloo di leen rey la gën a màgg li ñu sàkku ci ñoom mooy fexe ba yàq seen diine ñu ngi noonu fexe ba yàq seen diine loolu mooy la gën a màgg li jinne soxla ci doomu aadama dañoo nekkoon rek tar ay ay ay tariqa yu teqali ko ñu jàppoon nañu ne du ñu mën a tëy yàlla mukk ci kaw suuf fu ñu mën a daw jëmit du ñu mën a tëy yàlla looloo tax biñ demee ba dégg njubug yàlla ñun de dañ koo gëm bañ déggee njubug yàlla ñun de dañ koo gëm te képp koo xam ne gëm na yàlla dey du ragal lenn loo xam ne nii dana ko def lu baax te yàlla du ko ko fay lépp loo def ci lu baax pay ga danga ko gis àdduna danga ko gis àllaaxira ki gëm yàlla it day am xel moo dal ne lii xew ci àdduna nga gis nit def njombe ñu jàpp keneen ak bari ñu nekk ci biir prison yi la leen fa yóbbee keneen moo ko def ñu jiiñ leen ko ñoom fekk ñoom defuñu ko ak bari ci doomu aadama yu am seen àq ñu xañ leen ko amma borom bi jàll wa ala moom du xañ kenn àqam du duural kenn loo deful ميغي نونو noonu منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك نشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا بارك الله فيكم سيدي بروم جل وعلا مني جن ينجي وخبتي وأنا منا المسلمون ñun day am ne ci ñun ñu jébbalul wa minna alqaasituun am na ci ñun ñu jeng yoonu yàlla fa man aslama fa ulaika taxarraw rachada ña nga xam ne ñoo jébbalu day ñooñu ñooy ña tànn ak njub wa amma alqaasituun amma ña nga xam ne ñoo jeng yoon wa fa kaanu li jahannama xataba ñoom day daan nekk ñeel jahannama matt mun leen fay taale wala wa allaw istaqaamu ala tariqa donte ne day buñ juban kocc ca tarixab yàlla ba la asqaynaahum ma an gadaqa kon doon nañu leen nandal ndox moo xam ne ndox mu bari ca barkeel la li naftinuhum fiihi ngir ñu fitnaan leen ca la cay jóge wa man yurid an zikri rabbi koo xam ne da ngaa dumooyu sa fàttaliku borom it yaslukuhu azaban saada ku mel noonu day dina ko tàbbal mbugal muy jëm kaw ba faw wa anna masajid lillah xam leen ne jàkk yi de yàlla ko moom fala tad'u ma allahi ahada ey way bu leen woo ànd ak yàlla kenn wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu li am day bam taxawee jaamub yàlla ba diko wo woo kaadu yakunuuna alayhi libada xaw lañu sax day nek ño xamne dañuy dajaloo ci kawam qul innama ad'u rabbi nel man day duma woo lu dul sama borom wala ushriku bihi ahada duma ko bokkaale kenn ku mën a doon qul inni la amliku lakum darran wala rachada nel man day moomu ma ñeel leen ci fegal leen lor moomu ma ñeel leen ci teg leen yoonu njub wal mi ngi noonu mbokk suñu boroom ngi nettali ba tey yi la nga xam ne moom la ñuy seede bokk na lañuy ñuy seede mooy ñun day am ne ci ñun ñu jébbalul yàlla te la ngallaawaay jullit xamal ne bokkal ci ñu jébbalul seen boroom nga dégg benn waay bu naan jébbalu leen jébbalu moo wóor waaye na am wax ju dëgg nga waaye nag lañuy laaj tey mooy ci ku ñuy jébbalu mboo ko xam leen ni Ibrahima alayhi salaam ba ko borom bi waxee aslim lan la wax aslamtu li rabbil alamin debulul na borom binda fani bokku julit ndax yàlla mi le bind ci toq maniyu sa biru yaay wëlbati la dila la defar ba nga nekkob lire mu juddul la di la màggal di la wërsëgal fës la laa rey fës dekkal ndax yàlla momu dana yey ci ngay dem di jebulu ci keneen kudul sa borom jalla wa ala la wallahi moo tax mu ne ñun day am nañu ci jébbalul yàlla am na ci ñoo xam ne jéng nañ dem jébbalul keneen al alqaasituun mi ngi noonu alqaasit mooy ku jéng almuqsit mooy ku tege ci digg doomu ga képp koo xam ne nii day jébbalul na yàlla ñii day ñoo tànn ñoom ak njub ña tànn ak njub mooy ñu jébbalul seen boroom amma ña dem jébbalul keneen ñoo ñooñu day sawara mooy seen wàccuwaay sawara mooy seen wàccuwaay doomu aadama bi yàlla mi la bind teg la ci yoon sant la tere la soo bàyyee ay santaaneem bàyyi ay tereem dem topp ndigali keneen ak tere keneen borom bi nee na yow bokk nga ci ñuy alimenté sawara jahannam mooy sa wàccuwaay borom bi nag ne doomu adama yi cay waay bu doon dañoo sax jub ci tariqa bi ma leen wa bi ma leen tëral kon day dana leen may ndox moo xam ni muy bari ca barkel lay doon mbokk julit nañu xam ni suñu borom day daa am tariqa kaw suufi tariqa yi bari ni fi lool sab tariqa nu la neex tudde ko waaye wallahi bépp tariqa boo xam ne daa safaanoog tariqa bi yàlla tëralaloon suñu yonente salallahu alayhi wa sallam tariqa boobu ak réer la amma koo xam ne nii saw doxalin fexe nga ba déppale ko ak turu ak la yonent bi salallahu alayhi wa sallam nekkoon noo mën a tuddi garaawul la nga xam ne mooy jibluwaay mooy ndax yaa ngi tege ci sunnaam wo ci sunn loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax benn tariqa moom moo valable ca borom bi subhanahu wa taala mooy tariqa borom bi subhanahu wa taala bi nga xam ne nii nee na doomu aadama yi buñ ci tege woon mu indi nawet bu barkeel dana koy wax feneen ci araf ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض سودون وادك بي دانيو رغال يالا مو أبي بركي أسمان إندي أبي بركي سوف واي دانيو ويدي ما جابل ني دون دي لولو تاخ تاي بريزيدون دو لا ريبوبليك تاي غوفرنمان سوني خامون دا ني خامني ايمرجانس دون بي ديفلوبمون دون بي بوي ووتني اي جوريت لاني موي دانيو ورونا فخي با réew mi ñu fexe ba lu neex yàlla rek a fi dox tàggat ndaw ñi tàggat mag ñi fexe ba ñu dund la yàlla bëgg yàlla mi ñi moom moom réew mi nee na buñ ko defee mu ubbi barke yi asamaan ak barke suuf mbokk bari la ak barkeel du benn bari la ak barkeel du benn tey jii ñi ngi bakku naan yàlla may nañu gaz may nañu pétrole ndax ñoom Lat Joor ak Albuuri ak Kumba Ndoofeen Juuf ñoo fi dugg leen pétrole beeg gaz bi لا والله بخيول يلا لا نك نونو من مك لولي بروم بي سبحانه وتعالى نينا غير ما فتنا لينج موك علال يلا دا نكو جوخ اي نيت نوكو مانا تودي دا اي تاولا غاز لا بترول لا لوم مانا دون لوم دون فتنه لا سو اندول اك باس باس بو باخ فتنه لي مودي نيك واريمي te loolit xool occident tey mi nga xam ne ñoo gën a sori yàlla jalla wa ala ñoo ëpp ay fitna ci kaw suuf loolu itamit ñu bàyyi ci xel bu baax kon borom bi nee na bu ñu tegee woon ci yoon danaa ubbi alal doonte ne alal joojee say say sa cay yor fitna lay doon ñeel leen borom boobu nag subhanahu wa euh, koo xam ne da ngaa dummuy sawar ak borom la nga xam ne moo lay xaar mooy sawara yàlla waxul duma ko may xéewal de déedéet boo dummoo yoo woote borom bi mën naam sax mu yokk say xéewal ci àdduna waaye la lay xaar moom mooy sawara loolu it mbokk wax naa noo gouvernant waaye ngal la waaye yow sa wàllu boppit xamal ni suñu borom nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib fexeel ragal yàlla ku ragal yàlla teg ci yoonu yàlla borom bi nee na xat-xat ya nga nekk dinaa la ci génne danaa la indil ay wërsëg foo ko foogewul woon mi ngi noonu képp koo xam ne nii nag daa mooy yoonu yàlla dana dugg sawaras àllaaxira ko sawaras àdduna lu mu tar tar tar léeg-léeg nga dégg ay àll yuy lakk ca Canada yuy lakk ca Australie ay Chine ñu naan duré na un mois kaza waaye day mujj fay rek amma safaras àllaaxira borom bi nee na saada bis bu nekk mooy gën a tàng démb ëllëg mooy gën a tàng tey mbugal la moo xam ne nii du day kawe ba faw rek mu nekk contraire al janna bu nekk moo dàq ba ko jiitu bés buy ñëw moo dàq bésub tey mi ngi noonu borom boobu nag daa dina xam leen ni yàlla day moo santaan nañu tabax ay jàkka jàkka yooyu yàlla ko moom lan mooy jubluwaayu jàkka mooy fàttali jullit ñi ni yàlla kenn warul jaamu keneen ku dul moom gaa yi loolu mooy fa mooy mooy jubluwaayu jàkka bu ñëwee dugg si ci jàkka ji tey jii ñun ñëpp dañuy ran sosoloo suñuy mbagg am kenn ku ñu jiite lu muy wax allahu akbar ñun ñëpp ñu ànd mu jàng fatiha ba baa ñuy teqali ko jàkka kenn wuru faa woo keneen ku dul yàlla loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa ci lal bam faatoo bokk nañu jóge woon yi di ko wax église dañ fa fekk ak des saints ya ak seen xabru ya mu ne ñooñu ñooñu yées ci doomu adama yi <clears throat> ña nga xam ni suñu amee kilifa gu baax ñu dem suul ko seen jàkka ya looloo tax mbokk njuumte la ci nit ko baax ñu koy suul ci jàkka wala fekk bàmmeel ñu fay tabax jàkka mi ngi noonu nga ne kon waaw lu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu suul ko ci jàkkaam déedéet mbokk jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahabatul kiram suuluñu ko woon ci jàkka tey gis ngeen jàkk ji ni mel nii kër gële fële moom mooy kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu faatoo néeg yaay Aycha lañ ko suul kenn suulu ko ci jàkk ji yonent woon yonent fu mu faatoo fa lañ koy suul néeg yaay Aycha la faatu lañ ko suul bi sahaaba yi dund mboole seen noonu la ma sa demee jàkk jaa nga kër gaa nga ne bañ demee ba ci jamonoy Walid ibn Abdul Malik nga xam ne jamono jooje Omar ibn Abdul Aziz moo nekkoon gouverneur ca Madina ca la santaane ne nañ tëj jàkka ji nañ ko yaatal ba dugal ci kër yonent bi mu jàll borom xam-xam ya fekke loolu ñoom ñëpp naqarlu ko waaye gaa yi xam ngeen ne téeméeri waxi borom xam-xam benn waxu buur ko ëpp doole am déet ñu ngi noonu yéen ñëpp xam ngeen ci dara imaam yi tere nañ ba tàyyi col gu bon geeg wax ju bon ji waaye ba keroog président génne ne hey gis na tey ah à partir de minuit couvre-feu caalmin yëpp 11h lem nañ seeni i bagages am déet mi nga noonu kon buur lu mu wax moom da ngay gis waxi buur mi nga noonu kon loolu moo dugal jàkk yonent bi ci eh, kër yonent eh, bàmmeel yonent bi ci jàkk ba waaye tere woon na loolu yonent bi tere woon na loolu mboolem ñi ko jiitu ci ay soxnaam ci ay saxaabaam ca baq yële leen suuli loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ni jàkk yi yàlla ko moom bu leen woo di ànd ak yàlla kenn keroog nag bi mu taxawee jaamu yàlla ba di kawoo woo xaw nañoo rànkalikoo ci kawam mufassiroon yi am ci ñaari déggin benn bi ñu ne jinne yi la waxe ba tey mooy jinne yi déglu gi ñu bëgg a déglu yonent bi ak alxuraan ji ni mu neexee ak ñu ko bëgg a jege xaw nañ sax ba dal ci kawam ba yonent bi yëg leen donte ne yonent bi yëgu leen am ñu ne déedéet lii mu ngi wàcc ci yéeféeri makka yi bu yonent bi alayhi salaam nekkee ci kaaba gi di jàng alxuraan di xam leen laa ilaha illa allah qul huwa allahu ahad xaw nañu ñoom ñëpp riirandoo dal ci kawam ngir faat ko benn yoon mi ngi noonu borom boobu nag ne yow continuel di wax ni man day sama borom lay woo <clears throat> ca mbokk yenent yàlla baa ngi noonu ñaar yi da ko ko war a saxalal ca léegi bi ñuy taaya jàpp naa ñun ñëpp wax nañ ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abdu abduhu wa rasulu mooy da ngay ni ne <clears throat> yenent yàlla bi abdu la jaamu yàlla la yenent yàlla la looloo tax mu ne innama ad'u bi suma borom lay woo ñu ngi noonu du ko bokkaale ak kenn ey waay yéen jaami yàlla yit maa ngi leen di ah ngeen dem jaamu seen borom ca buñ ko bokkaale kenn man day man képp ku ma yaakaar ci yéen mënuma koo fegal benn lor mënuma koo indil benn njëriñ mënuma koo teg ci benn njub te loole la waxoon doomam ya waxoon ko ay jegeñaaleem ñoom ñëpp mooy laa ughni ankum min allahi shay'a amul lenn loo xam ne ni yoral naa leen ko mbokk lii yonent bi seede bépp sëriñ bu baax lii rek la mën a seede kaay leen ñu ànd jaamu yàlla yaakaar leen yàlla yoruma seen njëriñ mënuma dàq seen lor mu ngi noonu ba bàyyi lii xew nag doog a xew rawatina dëkk bu mel ne Sénégal mi ngi noonu Cheikh Ali غيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى جزاك الله خيرا سني بروم جل وعلا موني يهو يننتي بنيلين قل إني لن يجيرني من الله أحد من دي كن دوما من آر تيلي جوغتي يالا كن نكم من دون ولن أجد من دونه ملتهدا تدوما من أم يالا كن نفم من اللقجم إلا بلاغا من الله ورسالاته lamay may musal daal mooy jottali la nga xamne mo jóge ci yàlla jottali la nga xamne moy mooy yam ma sante ma jottali ko muy alquran wa man ya'si allaha wa rasula ko xamne da nga may yàlla ak bu yenentam naam fa inna lahu nar jahannam ko ko de dina ko ñeel sawaras jahannam khalidina fiha abada mu sax ci sawara soosee ba faw hatta iza ra'u ma yuadun babaa baa ñuy gis nag lañ leen di tëkkoo fa sa yaalamuun su boobaa day xel si dañoo xam man adafu nasiran wa aqallu adada kan mooy ki gën a lomfañ ku koy dimbali kan mooy ki gën a néew ab lim qul in adri aqaribun am aqaribun ma tuadun nee leen man day xóoma ndax jege na li nga xam ne dañ leen koy tëkkoo am yaj'alu lahu rabbi amada wala bok yàlla day def ñeel ko ab dik alimul ghaib yàlla dong moy ki xam kumpa fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ci kumpam goge day du ko feñal ñeel kenn illa man irtada min rasul xanaa lu dul ko xam da ko tan ci ab yonent fa innahu yasluk min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ku mel non day dana tabal ci kanamam ak la nga xamne moy ci gannaaw mi ngi non dana tàbbal la nga xam ne ca kanam kanamam gala ak ca gannaawam ga la loo xam ne aji wattukat la li yaalama an qad ablahu risalaati rabbihim ngiree mu xam ni ñoom kat jottali nañu seen leetari borom yam leen joxoon wa ahaata bima ladayhim donte ne yàlla peek na la nekk ca ñoom wa ahsa mooy wàññi na daa di peek kulla shay'in adada lépp lu mën a doon ci ab limam mi ngi noonu jalla wa ala bokk jullit euh, dafa am benn euh, orientaliste mooy ñooñu nga xam ne dañ leen di tàggat ñu dem jàng langue arabe ba maîtriser ko ngir mën a bind ngir xeex l'islam moo am kenn ca ñoom koo xam ne moom looloo taxoon muy mission ba mu demee ba jàngal xuraan ak sunna mu for tuub moom dugg ci l'islam waaye mu ne bokk na ñun suñu problème bi gën a rëy bu ñu mënuloon a expliquer pour wonne ne Muhammad moo bind alquran moy qul yi nek ci mom nit ki nan lay bindé ab livre bopam ba pare nan waxal waxal waxal kon c'est sûr que ne Muhammad mi li du ay waxam ndax kon tax yàlla nan ko waxal waxal waxal gis ngeen kon borom bi sank waxon nañu waxal moy neel duma ma ak yàlla dara neel momuluma len jeriñ wala lor ñettelu waxal bi moy man day kenn munuma musul kenn mënuma laq su dee dama mooy yàlla kon mënu leen fexe fexe ba ma mooy yàlla ndax su ma ko moyee amul fenn ku ma mën a aar wala di ma mën a laq ba ma mucc ci moom lenn dong mooy tax ma mucc ci bëggalum yàlla mooy li ma yàlla sant lépp ma jottali ko ca loolu it mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day def na loolu la ko yàlla santoon lépp jottali na ko keroog aj màkka gam aj téeméeri junni ak ñeent fukki junni ci ay sahaaba wër mu ne leen ndax jàpp ngeen ne jottali na li ma yàlla santoon ñu ne ko ah kay seede nañ ne yow day qad ballagta risaala wa adayta al amaana wa nasaxta al wa jahadta fi llahi xaqa jihaadi seede nañ yow yonent yàlla bi jottali nga sa risaala yi boroom kóolu tegam la joxoon matal nga ko laayi nga biir xeet bi mu ne allahuma chet yàlla seedeel mbokk yi yonent bi la ko yàlla joxoon ci yiw jottali na ko waaye day ñu dem ba junni at après am ñeneen ñu ñëw ne déedéet yonent bi am na lu gënoon a rëy lu mu joxoon saxaaba ya da koo dencaloon suñu waay mooy mu ngi nii lii day moo gën alquran am ñeneen ñu ñëw ne yonent bi day ñëwaat na ci ñoom jox na leen loo xamee ni nii képp ku ko jàpp nangam ak nangam mbokk loolu suñuy wax la yonent bi la ko yàlla jottali woon jottali na ko sahabatul kiram nee na bàyyiwuma lenn lu leen di jegal àjjana lu dul leeral naa leen ko bàyyiwuma lenn lu tax dem sawara lu dul leeral naa leen ko illa balaaga min allahi wa risalaati loolu def ko mu ne nag képp koo xam ne daa mooy yàlla gannaaw ba yonent bi jottile ay ay ay ay ay risalaam mooy yonent yàlla ak koo mën a doon sawara mooy sa wàccuwaay te danga fay sax ba faw ngalla waay mbokk julit gëm leen gëm leen bu leen ko agresseurs yi yàqal heure boo nee cëpp bàmmeel kenn du laaj sëñ saar kenn du laaj sëñ mbeng liñ lay laaj mooy yàlla ak yonent yàlla kan mooy sa boroom ci ban diina nga nekkoon loo doon wax ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm leen saxal seen xol raditu billahi rabba wa bil islaami diina wa bi muhammad nabiya gëm leen yàlla gërëm leen yàlla di seen boroom islam di seen diine yonent yàlla di muhammad di seen royukaay képp ku mooy yonenti yàlla ak koo mën a topp ci kaw suuf sawar moo lay xaar xaalidina fiha abada borom bi nag ne nag muñal ba baa ñuy gis li ñu leen di tëkkoo gis bu mbugalum yàlla ñëwee dañu xam kan moo gën a lompañ ñu koy dimbali kan moo gën a lim niw ca yéefar yi liñ daan wax naka jëkk yonent yi yéen da ngeen a tekki dara seen mbooloo mu doy di bi ah, kan moo ëpp la nga xam ne gën a rafet na di ku ëpp mbooloo ku gën a rafet la nga xam ne moom mooy kilifa yi ko topp borom bi na xaaral rek mbugal mi ñëwee da ngeen xam ku gën a ku gën a ëpp mbooloo ca lool it moo tax ba keroog bañ dajee ca Badr waa Màkka ñëw nañu ak mbooloo mille personnes rasul sallallahu alayhi wasallam trois cent la àndal waaye bañ dajeeg mille personnes yooyu xamoon nañ kan moo gën a néew mbooloo kan moo ëpp la nga xame ni nii moo gën a néew lim ca mooy gàññe nañu leen rey ca juróom-ñaar fukk yeew ca juróom-ñaar fukk yóbbu Madina borom boobu nag ne yow yeneen bi waxal ba tey man day li leen yàlla dig xawma day ñëw léegi xawma yàlla da koy wutal ab dig kañ la leen yàlla di alak xawma ko waaye daal li ma xam moom muy ab yéeféer yàgg naa yàggul dana ma sada dajeeg mbugalum borom bi jàll wa ala man daal li ma xam mooy kumpa yàllaa ko xam te yàlla du ko xamal kenn ci ay jaamam xanaa lu dul koo xam ne gërëm na ko di yonent mu xamal ko la nga xam ne moo ko ca soob te loolu it mbokk wax nañ ko sànq nan la ab jaam di jànge ni yàlla wax na ci alquran aalimul xayb fala yuzhiru ala xaybihi ahada yàlla xam kumpa du ko xamal kenn yow nga sol sa dàll dem ci buxaabi bi toog di ko laaj mu lay wax su avenir naka la nar deme mbokk loolu weddi nga alquran ba tax yonente bi alayhi salaam ne faqad kafara bima unzila ala muhammad képp ko dem ci seetkat te loolu yéen ndaw ñi bàyyi leen ci xel bokk na ci li ñu tubaab bi noté muy li ñuy tudde horoscope lan mooy horoscope am na ñoo xam ne li tax ñuy jënd journal mooy horoscope su ko defee ñu ne la yéen ñu judd le 20 mars ba le 6 avril bis ne que tey bu leen jël benn décision décision bu ngeen jël du baax am déet waaw yéen ñi julli 15 avril 25 <laughs> euh, juillet ba 31 nangam bis ni ki tey day bu leen wax benn ngoro ngoro gu ngeen takk <laughs> du baax noonu lañ ko def ba indi ci lu ma 12 séddale doomu aadama yi ci 12 façon catégorie catégorie bu nekk ñu ne la lii sa programme bi tey nii la nar a demee waaw gaa yi man dama jëli la diine waaye yow mi borom xel ñaata yoon ngeen gis ay seex yu bokk benn heure bu ñu judd ci kaw suuf ci seen programme bokkul. kii baax kii bon kii am alal ki ñàkk alal kii nekk ci fitna ki nekk ci jàmm nan lañuy mën a yow intellectuel mën a gëmee ab tubaab bu lay gëmloo ne bis nekk tey sa programme nii la war a tëddee mbokk loolu déedéet yàlla moo xam kumpa kumpa googu du ko xamal kenn xam nga soo bëggee noppalu lay def heure boo demee buy sikk sàkk ndax lii ma nar a def baax na kër gii ma nar a jënd soxna si ma nar a takk tukki bii ma nar a dem examen bi ma nar a def ndax baax nag baaxul yonent bi aleyhi salaam nee na jullil ñaari rakka nga ne yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi di la dogal ci sa kattan gi di la ñaan ci say ngëneel yi yàlla yow yaa xam man xawma yaa man man munuma yow rek yaa xam kumpa yàlla soxna sii ma bëgg a takk su dee moo gën ci man ci sama diine ak sama àdduna yàlla nag ma ko yombalal ca barkeelal ma ko su dee ne nag baaxul ci suma diine baaxul ci sama adduna yàlla na ko soril ci man génn ci sama xel ca dogalal ma lu ko gën aajowul joxe sondeel aajowul joxe ay këyit joxe cinq mille sa digganteek sa borom la nga wékku ci yàlla ab jurit lii la war a def mbokku jurit lii la war a def mooy li ñu tudde istixaara yonente bi alayhi salaam jàngal ko sahaaba yi ma waxaat ko ngir ngeen man koo jàng ba baax a baax ey yàlla maa ngi lay gannaaw ba nga julee ñaari rakka yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi di la dogaloo ci sa kattan gi di la ñaan ci sa ngéneel yi yow yaa xam man xawma yaa man man mënuma yaa xam kumpa oto bii ma bëgg a jënd su baaxee ci sama diine ak sama adduna yombalal ma ko barkeelal ma ko su dee nag baaxul sama diine ak sama adduna sorilal ma ko ci utal ma lu ko gën gaa yi lii la mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni yàlla day ab yonent bu muy nii dana ko wattu ba mu jottali yenent ak yàlla ga aka bëri ay yenent yu ñu rey yenent yu ñu génne waaye nag balaa looloo am moom yàlla dana ko wattu ba mu jottali li yàlla bëgg gannaaw ba nag mën nam ñu rey ko mi ngi noonu borom bi mu ne kullama jaahum rasul bima la tahwa anfusuhum fariqan kazabu fariqan yaqtulu bani israil kenn xamul ñaata la ñu rey ci ay yonent am nañu ne ëpp nañ trois cent waaye borom bi moom dana ko aar ba mu jottali li nga xam ne moom la yàlla bëgg rasodo borom boobu nag mu ni ngir moo xam ne ñoom jottali nañ seen yonenti boroom borom boobu nga xam ne moo peeg lépp ci xam-xamam te it moo peeg lépp ci ab waññeem te loolu it mbokk jullit tey da xam ne yow doomu aadama sa borom yàlla xam na sa biir xam na sa biti sa borom yàlla loo def ci lu bon bind na ko loo def ci lu baax bind na ko amul lenn loo xam ne dana rëcc ca ba kër ga yowmal qiyaama yow aka bari looy fàtte borom bi mu ne nas euh, borom bi mu ne sunu borom dañ koo fàtte yàlla moom mi ngi ko wat ahsaahu laahu wa nasuuhu aka bari yow doomu aadama ay jëf yu baax yoo def fàtte nga ko yàlla moom mu ne fàttewu ma de mi ngi lay xaar aka bari jëf yu bon yoo xam ne yow fàtte nga ko suñu borom mu ne fàttewu ma de mi ngi lay xaar ahsaahu laahu wa nasuuhu ahsaa kulla shay'in adada ñi ngi koy ñaan borom bi jalla wa ala yal nañu jaglal njéggalam ak yërmandeem yal nañu may afiya fi dunya wal akhirah wa sallallahu